Saalu say dongo du yalwaani ay saalu say dongo du yalwaani ay waa kay assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yépp ñu ngi nuyu mbokki taalibe yépp ñu ngi nuyu dëkkandoo yépp ñu ngi am mbégte lool ci ànd ak mbokk yu baax yi ci guddi gi ñu jagleel Cheikhul Khadim ngir gàttandoo ko bis bi gën a rëy ci murit te nekk ci sunu jiital ci kàddu yépp ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi déwén di ñaan bis bi ci sunu kanam it sunu borom yóbbu la cee jàmm te defal lu yóbbu la fu doy sëkk ci bis boobu ñu Seexu naa ñu lay nuyu bu baax ak sa mbokk yu baax yi nga àndal te jataay bi miin la lool ngir sama kóllëre ak yéen te kóllëre gi sëriñ bi képp la te bu dee sëriñ bi képp ko laal di dëkk warta am xeebante warta am manque de sincérité waaye dafa war a nekk dëkk ak situation bi fu fekk ak jamono ji mu xat-xat bi nga waxee ni di nga def bis bi tey jàpp ko man la dinaa teew insha allah yàlla dogal defe naa le 10 ak tey am ci bis bu ma waxtaanul ñetti programme par journée Thiès laa bàyyi ko nii bi may woo maa ngi daw 100 à pour ñëw sunu borom nam mu marché fi waxtu yi waaye su programme amul woon sax damay ñëw bokk ci ñi laal si basan yi ànd koog yéen ngir liñ fasante fii ci bërëb bi di fi toog di waxtaan sëriñ bi ak mbaaxam di bég lool ci sama rakk ji nga xam ni fu mu nekk sama jëmm la fa nekkal fu ma nekk moom laa fa nekkal boole nu mboole boo xam ni waa dama sonn baat bi daa dee waaye léegi mu firigu waaye léegi mu firigu waaw euh, boole na nu ba émission sax na ko bokk ngeen koy seetaan yéen ñëpp àllal la muy kenn du sëriñ bi ñu nit ku baax ñu nuyu sama rakk ji mu fekkoon sëñ Saliou Seck ku baax sëñ Saliou Seck xasida moom am na mandal la ndax xasida la koy dolli te loolu jagleel la waaw sëñ Saliou Seck raaj yi daf ci boole yar ak teggin ak xam bu baax li muy jàng ko mën a jàngal macha allah moom it nii dina bëri bi waaye ko am kóllëre ndax daaw ñi mu ko defee ci génn na day gën a di nuyu sama rakk jële ñoom moom it sëñ Mor Gueye defe naa ñoom la féete biir ñu ànd woon ko nii te démb noo bokk defe naa fanaan ca mbuur ci safar bi fa doon am kon sëñ bi li ngeen waxante ñun dëgg la yéen ngeen sëñ Tuubaa ay ndaw ñu bëgg sëñ bi nag di dox ci sëriñ bi ñun danoo war a jàppanteeg ñoom te yàlla rek tax sëñ mooy sunu jataay bii di ñaan sunu boroom gën leen a kàttanal gën leen a dooleel te béréb bi mu gën koo yëkkati te gën koo yokk te dina am insha allah weer wii ngeen di gàttandu nag bis bi ci sunu kanam di fukki fan ak juróom-ñett ci safar safar weer la comme weer bi ci des rek leer la woon sax moo xam ne dañ koo gaafal dañ daan wax ni bu ci kenn door dara bu kenn def dara ñu gaafal waaye Serigne Touba tax weer wi am importance am Serigne ndax moo ci génn daggal na sunu buumi safar moo ci ràngoo daraja boo xam ne ba adduna tukki góor góor du ko am jeex waaw daal di sëñ Tuuba jukki ba la neexee waat ko góor du ko am yàlla ubbil ko ci safar lu ma wax ni fataxta baaba sukri fii chehri safar tayiba nafsin doona durrin wa safar yow yàlla ubbil nga ma buntu cant cant xanaa xamul moo féete kaw jaamu yàlla yëpp ndax moom la suñu borom wax ni ngeen ci saa ma toll leen ci saa si duma xaar ëllëg lii ngeen di sant tool bi ko léegi teraange ji yomb mbir bi danoo yomb tabax dana tax mu yomb parce que danoo sëñ Tuubaa danoo saxal ci cat sëñ bi yàlla da koo may mu bari ay victoire noonu taalibe ñu bari ay célébration te célébration yi ñuy def reconnaissance la ci ndam li sëñ bi am delloo ko sant yàlla yàlla di doom moo waxoon ni barakat yi barakatan laa tanfari tawsiati kamaradi laa tanxari sama barke man sëñ Tuuba la bu ubbiku boo xam ne dootul taxaw ngaa xam ngeen ne bi moo dundal ñëpp entreprise ñun ñi di ci waxtaan yére bu lu neex la ñu sol te ñeewul ministre ci kaw loolu dëgg lu mu neex dañu commandé suñu kër togg ko lekk ñëw ñu ministre bi wala buur bi li muy lekk léeg-léeg nga ubbi sa am ay oto tànn ci bala neex mu yóbbu la réew moo bëgg a dem wàcc fa kër bu rafet muy gëti mbedd mi soo rombee ku la romb teral la ñii gisi la ñuy indi ñii tailleur la ñuy doon ñun ñoo koy ñaw la ñuy wax ñii ñoo leen wutal montre ñii lu nekk ñii parfum la ñuy indi jigéen ñi gën a rafet ñu ñëw dama lay jox sama buum ngir sëñ ko dese yow. xanaa ñun kon nangu nan ni barke bi mu wax mu ngi ciy wax rek xam nañ ni barke bi ngi sëñ mu ne teraanga joo xam ne doog nag la wax du biir aljana kon weer ni su nuyoo war nañ koo yëg ndax lim la ci fàggul moom Ahmad te fàggoo ko ci coono bu nekk si xaar yi boo déggee mu ni dayqi wa faqri qad azalahuma maan bil Mustafa man saxuru la yujhadu nee na man suñ ku xat laa woon bu leen gis tey sama firigu gi jàpp ni ca laa ma sa nekk damaa xatoon démb faqri sama ñàkk ko ñàkkoon laa mu ne waaye yàlla xëy na dindil ma lépp jox may ndam ci daraje yeneen bi nga xam ni ak jiitoom kenn umpale safar sëñ Tuubaa moo ci jëf lu tax ñu fàttali xanaa yëgoo ni fukki weer ak ñaaraam wenn weer bi mooy rabiul awal yaram tuddee tax ngeen ji mi def ndax ci la gane àdduna mooy gàmm jullit ñëpp dugg nañ ci biir dootoo déggaat benn nit benn nitu yàlla yarante bi rek moom moom weeru tam leneen leen Ibrahima alayhi salaam tax muy wax yàlla da koo mu rey doomam mu nangu nangoo ñàkk doom ngir yàlla loolu moo waral muy jour xijja di weeru Tabaski ñu koy màggal di fàttaliku jëfi maam Ibrahima wax naa la ñaari yaram yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Ibrahima ñaari weer rand la ci fukki yeeg ñaar fukk a des benn wàllu amu ci weer bu setoo nit liggéey na yàlla ba faatu am ngërëmam te amul wenn weer wu koy mandargaal ci lislaam weneen weer yi mooy muharram tam xan fukki yonent la ci yàlla xettali ci yow mu asura ñu koy fàttali ko ci muharram ñetti weer rand la juróom-ñeent des des mennum Cheikh Mat Bamba rek képp dong moo ci génnaat ci safar sa jëm ñu suñu dunde safara saxal na ci aljana ak jëf ci loo xam ni weer wi li doon ñàkk-ñàkk benn daayira bi dañ ñu dafa gaaf tey jii weer wi yirif na àdduna weeru safar wax naa ko léegi te tees léegi soppi nañu bureau yi màggal safar démb maa ngi ci bureau bu mag ci Dakar boo xam ne ay kilifa yu nag rànk administration ñoo doon màggal safara te ñeent fukki at ci administration bi muy daaw ci liggéey ngir safar ci seeni bureau maa fa doon waxtaan xaar ñu jëlee dafa jàng démb marché yi soppi nañ ko safara ngay taalibe ñàkk a taalibe ñëpp ay àndandoo di def cant bërëbu liggéeyukaay yi université yi école yi lépp soppi nañ ko saxaw yi cant taka aga buñ ci bis bi mu woote moom fi ne lii ñuy def lépp gàttandu rek na bis baa ngi sunu kanam mooy fukki fan yi juróom lu mu ci def nee ñett la ci yàlla namm ci man sababu xaybati anna allah araada an ana mooy moo xam ne éternellement lay doon may nekk xaadim rasul te ci tukki bi lañ ma ko joxe éternellement may nekk xaadim rasul may liggéey yàlla xanaa xamoo bëgg buur baax na waaye buur bëgg laa ko dàq tey jii mën ngaa def tout pour gis président de la république ndax da nga koo soog mën nga koo bañ a gis waaye bu la soppoon moom bëgg la balaa ginnaaw suba wala suba mën na ñëw baax. kon yonent bee sàkku ci sëñ Touba jaare ko ci boromam la sàkku ñu defal ko sëñ Touba muy xaadimu rasul mu liggéeyal yonent bi nag ci xidma bi mu def lu kenn mës moo ko wax. loolu moom lu mu wax dafa neex a waxtaan bi mu bind ci bëy nee man danna annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni al qadim bima wana an mislihi kullu qadim nee na ku njort ni man sëñ Tuuba li ma defal Moustapha di nga defaat lu toll noonu naa ngi dindi sa njort sànni ca àll ba man maay xaadim rasul liggéeyal naa ko lu ko nit mësta liggéey waaw nee na ku njort ni li ma defal yaramte bi di nga defalaat lu toll noonu dindi naa sa njort sànni ca àll ba maa ko liggéeyal lu ko kenn mësta liggéeyal loo xam ne kenn dootu ko liggéeyal bi alayhi salaatu wasalaam moo tax sëñ Ibrahima Diop al Nashari eh, mu ne ko laxat xaddamtal Moustapha xidmatan wanal akaabiru anha fi jamii al mawaqifi yow sëñ Tuubaa liggéeyal nga yonent bi liggéey boo xam ni lott na ci def lu mel noonu mboolem liggéeykat yi mboolem jataay yi mu liggéey liggéey boo xam ne moo ko jox cër Xaadimu Rasuul waaye loolu mu ko amee ci tukki bi bi ci des ndox suñu digganteeg safara nag ñun ñëpp safara la ñu ragal te suñu borom nee naa ci tàbbal ba fees te Sëriñ Tuubaa képp koo xam ne wékku na ci man te la ma woote nga ne la ma tere nga bàyyi ko ëllëg su ma taxawee sama borom dinaa am daraja yi mën laa jiwu tàbbal la aljana te nee na loolu ci tukki bi laa ko amee ëllëg dinaa mën a tàbbal aljana sama njaboot te tukki bi laa amee loolu il faut am daraja bu kenn amul fi ne loo bañ bañ. du tere gi tëdd salalool ba mu yëg càmbar mbirum sëñ Tuubaa jàngat ko daal di dëgg dëgg nag moom man du ma sax waaye sëñ Tuubaa amul morom. da fi ne safar bu ubbee waxuma la Sénégal waaye nii lu koy màggale bitim réew ni am na ko. mbirum sëriñ bi daf koy déranger da koy merloo ndax bëggul lu baax waaye yàlla da koy nattu bala moo ñëw ci réew seet si njabootam day bàyyi ba weeru safar tel dañu wàññi billet yi bu door a mën a jënd billet ñëw ci njabootam kon sëñ Tuubaa timm na ko xaar ci safara bi ndax pour nga ñëw ci sa njaboot il faut nga xaar ba weeru safar ubbi nga door a mën a ñëw ci sa njaboot mbokk yi liggéeyu sëriñ bi àgg tey ci wër àdduna juróom-ñaar àdduna juróom-ñaar wax naa ko fii ci benn conférence sëñ Tuubaa dana baa na li kulli man lahu wilaaya kaw nii wiqaalu fin baraaya aaya nee na leer na ci képp ku am wilaaya kon sëñ Tuubaa cuune du ko xam coono coono ko demul fenn mënta nangu loolu sëñ bi du ko xam waaye nee na ñi am wilaaya tekki dara ci yàlla di am cër ci sama borom xam nañ ni man sëñ Tuuba kéemtaan laa ci yàlla sama borom dafa am fii 18 heures ci Dakar benn murit sàggan bu mel ni man bëgg a tuur ndox rek yëf yi yebal ko mu dem ba ci suufu cathédrale bi mu sëgg fa di tuur ndox di saw ba cathédrale bi nag bëre bu jàmbur la dañ fay jaamu ñoom chrétien yi mu sëgg fa di saw labbe bi mu ngi sëpp ay 18 heures di ko xool ne kay labbe baa koy xool mu tuur ndox ba àggal labbe bi ni ko hee mu siggi xool ko mu ne ko li ngay def rafet na mu ne ko déedéet mu ne ko fii du ay wanag ba nga fii tuur ndox mu ngi gëme seen jumaa la ñu gëme suñu fii mu ne ko baal ma de mu ne ko amul baal ma dindil saw taalibe bi yow daa di sëgg nar koo toll ni làkk bi ne ko non saw sobe la bu ko laal ak sa loxo demal nga wut ndox nga def ko ci nga dem tànk ndox ñëw sotti wis ci kaw bëgg koo anaat mu ne ko bul laal léegi comme def nga ci ndox rek ça suffit bu ëllëgee nag bu mu la dalal ndax fii moonu ñor fii la ñu gëm di fi sunu yàlla comme ni nga fonkee sa néegu yàlla taalibi bi tam def ko yàlla ne ko jërëjëf jërëjëf maa ngi jéggaluwaat nga baal ma dama juum laata bi xool ko ni ko xanaa murid nga fii ci Dakar cathédrale xanaa murid nga mu ni ko waaw murid laa laata bi ni ko ndax xam ngeen sëñ Tuubaa lu mu ni ko ma ko de waaye gëm naa ko lool mu ni ko ma wax la ci tuuti luñ ci yàlla war moom laata bi ni ko dégg nga olof taalibe bi ni mu ni ko ndax xam nga ci wolof lu ñuy wax tëj fël tëj mu ni ko waaw dégg naa tëj fënd mooy ñu jënax di gas fii ba nga koy séentu mu dem fu sori daal fay génne laa bébé reetaan ni ko effectivement le prophète islamique Mohammed paix et salut sur lui li ngeen Madinatul Munawwara fële Sénégal yoon jëm Sëñ Tuuba loolu mooy Sëñ Tuuba bi ni ku am dara cër xam nga sama man kéemtaan la kéemtaan googu mu nekk nag mu wax ni weer wii di weeru safar dox naa ci ak seen diggante ak safara yor naa ci daraja bu kenn yorul xanaa yëgoo ni Amérique du ay caaxaan am fa kër déedéet ci turu islam loolu du ay caaxaan man am nga at moo xam ne ci Atlanta defe naa la fekk dama wàcce kaamil ci kër sëñ Touba bi dama jooy ñaan sëñ Moustapha ko defal te xam ne liggéey seen Tuubaa diversité bi mu am tey ci àdduna bi xoolal cinquante états américains yi tey fu nekk mbiru seen Tuubaa daf faa daje sël nit ku ñuul ku fekk fii baax Sénégal gane àdduna Mbàkke Bawol am bis bu ñu ko jagleel ci biir New York ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Bay in New York ndax moo liggéey loolu ci turu islam benn la dañu yàggul 2001 le 11 septembre liñ ko tuumaal biñ ñee dañu daaneel World Trade Center américain dañu mujj ragal képp ku nekk islamiste boo ñëwee ñaan visa xam ne lay rejeté souvent gisee sa comportement ñu un jihadiste wala un islamiste mais ci boobu jamono suñ moo ko daa càpp suñ tuubaa ci ñuy dugg biir Amérique di tuubal ay kuréel di defar ay néegi yàlla di defar ay këri sëñ tuubaa di ko jox l'islam ñuy yaatal liggéeyu nit ñi ba tey sëñ Touba am bisu sëñ Touba ci biir capital bu amee loolu kon day wane li mu wax ni daraja ji ma yàlla jox jox ko kenn ku ci tukki bi laa ko fàggoo sama njaboot ëllëg dinaa leen mën a tàbbal aljana li koy firndeel sëñ Mor Dial Seck sëñ Mor Dial Seck moom la sëñ Touba mujj seexal sëñ Touba seexal na ay junni waaye nag kim ci mujj seexal mooy sëñ Mor Dial Seck nee na dafa am bis sëñ Tuubaa ni ko may naa la juróom-ñaari fan yoo xam ne saa soo xëyee na nga ñëw man ak yow wax te booba jamono nee gis sëñ Tuubaa lu jafe la te mënu ko mu ni waaye bi ma ko toog ci bind ma muy bind ba mu yàgg mu ni ma moo ma ni ko mbàkke mu ne ndax xam ngeen nu ma tudd nee ma ni ko mbàkke nu tudd nee na sëñ Tuubaa ni ma Ahmadu Ahmadu laa tudd génn bind ba mu yàgg mu ni ma moor ma ni Mbàkke mu ni ndax xam ngeen fu ma dëkk ma ne ko Mbàkke foo dëkk mu ni aljannatul firdawsi laa dëkk ni ma moor ma ni ko Mbàkke mu ni aljanna firdawsi benn jaamu yàlla mënu faa yóbbu moroomu jaamu nee na ma ne ko ah loolu dina kiis de nee na mu ni bopp mu ni ma ba mu des yonentu yàlla Muhammad man dafaa dugal ko soxla ni ma waaye moom li ko mën yàlla yéex na koo jox yàlla dafa bàyyi ba mu xeex badar ba noppi mu door koo may boobu daraja waaye yonent bi mu xeexagul badar du mu faa yóbbu kenn ku ku mu nee na ma toog jaaxle lool te ne sëriñ bi jékki-jékki ni ma moo ma ne ko mbàkk mu ne ma billahi wallahi wa tallahi man ahmadu mii di wax ak yow falaa ak ku ma yaakaar ëllëg nee na nag man yéem mu ni ma moo wax ndax xam ngeen lu ma doon nee na ma ne ko loo doon ni ma maay kitaabullahi maay téere yàlla bi ni ku ma gisul gisul téere bu mag ba ku ngeen fi gis lu mayam rëy rëy benn jukki la ci téere bi benn jukki wala benn aaya waaye ku ma gisul gisul téere suñu borom suñ ko may kaamil bu mag ba ma moo ci sama borom kon nanu xool tubaab kan la mës a génne génne un jour waxuma laay at bi un jour rek ne yow ay pexe te te ci yow man de jàng ma ko ci histoire te ma xam histoire a bari mu ne mën naa tracer histoire am fii na ko waaye gisuma man ku tubaab mës a génne benn 24 heures bi da lay defal pexe te barewul ci yow waaye sëñ Moussa Kane dee na sëñ Touba amul kuy dajeeg nasaraan juróom-ñaari xat yu mag te yàqulu tawxiidam ku dul yow sëñ Touba amoon nañ fi toj woo xam ni buñ jàpp teg ca kaw jinney toj ja daal lay foog ndegam doo sëriñ Tuuba amoon nañ fi nag woo xam ni janloog nit lay mbañam boyal nañu nag woo weer mu janloog sëriñ Tuuba ni ko nag la yoneen ba ruujoon góor ña booyal ko yaa ko bañ bu lislaam defoon ak tool nga jiwlin ko waa Tuuba xanaa yëgoon ni Afrique gii ñu dëkkee Afrique gii fii sëñ bi jaar am coono ci Gabon ndax xam nga ni premier président bi mu am ni Léon Mbarr tubaab yi nekk ci ginnaaw ñoo ko faagaagal Togo seen premier président di Sylvain Olympio tubaab yi ko faagaagal en faagaagal en 1963 noonu la ba ci Thomas Sankara bii ñu rey 87 dañoo jaar ci suuf fexe ba comploté ko Blaise Compaoré dañ ci kaw tubaab yi la Patrice Lumumba ñoom la. Malcolm X ñoom la Martin Luther King ñoo ko rey en 1968 mu dee foofu ci Memphis ñu boobu ko ñoom la ñoom la woon ci Ahmadou Ahmadou premier président bu Cameroun ma dal fii yoo xam ne ko ñoom la woon ci Barthélemy Boganda ñoom la woon ci Juri Hamani ca Niger amul fu mu jugalu seen yàq. kenn képp lañ mës a dajal mu jaaxal leen yóbbu ko sept ci géej gi sëñ Tuubaa ni ma teg cin duñ ma tegal cin du ma leen tàllal loxo du leen soxlaal du julli lul ci bopp waxtu saa su ma jullee damay jàpp du ma toon ku ma toon ma jéggal du ma lor kenn dina yëkkati lislaam te ñëpp am ndam fukki fan ak juróom-ñett la saf la fas wi rëpp tën fii la jógee Mbàkke Baari Jolof Seexul Xadiim li muy dem àndut ak rakk kenn téyelu ko dara àndut ak mag kenn wéttaliwu ko foofa àndut ak doom kenn wéttaliwu ko foofa xusuur yàqal la wal ëhlu am ni tafaraqa li mat xillazi anhul mat yu xasid samay kër wéet na tàqale nañ nag sama njaboot ci turu yanant bi may tàggale ma mere waaye nag du ma soxla ndimbalu kenn ku dul yàlla sama borom te dinaa yëkkati li saa man taw fii la départ Mbàkke Baari Jolof soxna Fatou Touré Mbacké nee na mooy taawu Sëriñ Touba dañu laajee taawu Sëriñ Touba jigéen la mooy soxna Fatmata bintu Rasul bi taawam bintu Rasul mooy soxna Fatou Touré Mbacké 1878 ci ci la génn àdduna 91 ans la dund toujours Sëriñ Saliou ci doomi Sëriñ Touba yi moo la ëpp ay at yi mu dund nee na fekke bi sëñ Touba dem ci géej gi fukki at ak juróom-ñaar la am nee bi ñu ëllëg la sëñ Touba dem ak juma ci guddi sëñ bi moo ñu génne ni seen doxalin ak seen njàmbaar ga ci yàlla di leen tudd di leen mu ni ñokke génn ci ndaar la génne ay kaase xollal ay daal waxtaan nañ ba sol benn daa di wax damay fas yéene dem ci tukki moom yëg na ko bu yàgg xam na day dem waaye ma bañ ngeen am ci benn tiis njàqare bi leen ko ci am de yàlla sama borom mi ma sàkk te sàkk jaam yëpp moo yëkkati bi yenam di ko yen képp mu sàkk teg na la yen waaye képp su ko yëkkati ba mu yor sama bopp téeñu ko yen ko ba àdduna lépp di ko séet xam ne maa yenoon islam yàlla loolu sama génn bii daal ni fii ma taxaw di départ bi jëm ci tukki bi fekk buur àdduna bu am doole am njàmbaar am fit ñëpp wekk ko taragal ko lu mu digle ñu def ma fekk ko fondi ko ba kenn dootu ko xam moo gën a yomb ci man julli ñaari rakka am daraja du yónni kenn ci wetam duñ kon wilaaya taxu may dem damaa bëgg a tàqali dëgg ak fen damaa bëgg yëkkati islam bi li ma ko yonent bi dénkee damaa bëgg a taxaw sama borom ba kenn dootuma tàqali moom taxaw ak bi ba kenn dootuñu tàqali taxaw asxaabul badal maam Thierno bi mu yebaloo ci fajar bi la si bi mu ñëwee di ko nekkali sëriñ bi lam fa jële bi ne ko Thierno dara matuma wax démb bi ngay dem bi nga tollee ak tubaab bi ci benn détti mbir tàkkusaan bi jot Ceerno mu ni Mbàkke mu ni ko détti mbir bi ngeen taxawoon melentaan bi dox sax man Ahmadu maa ngi koy séen fi mu ne nii temb yëf yi àgg na foo xam ni wax doodu ma defal jëfa ci des na ñëpp toog ma dem jëf te ñëw mu ñëwee lislaam am jàmm lislaam la ni song te man ñii maay namm dalam léeg-léeg ngay seetaan benn film ñu prendre otage kenn loolu lañ defoon islam prendre otage tàngoor joo xam mais ñuy def ko dañuy ñëw ñu daal di prendre otage kenn laaj lu bari ñu ko fay ñu la jox sa doom wala du la jox sa soxla l'islam dañu téye woon otage ñoom nasaraan sëñ Touba yi naa koy nangoo ci seen loxo delloo si ko ci réew mi mu yëkkati ko àdduna bépp di joxe l'islam man doo ngay dem kenn du ma wéttali nag ci terrain yi yàllaay sama wéttal yonent bi saa wattal alxuraan ci moom laay roy amul kenn fu ko dimbali moom rek fas bi suba boobu la rëkkutal fas waa ngi tudd awnullah mooy ndimbalu yàlla moom la sëñ Tuubaa wax muy dem fas wi mbalaanu sooy mu vert lañ ci laal déggali fas wi dafa weex ba mel ne nikel Xaadimu Rasuul wax ak ñetti kaala bu nee mëkk gëmm day mel ni yaram yépp kawar bu xoolee day mel ni weeru fukki fan ak ñeent jëmm ju tuuti la tuñ ñi dafa jëpp a xool di nuru sëñ Modou Moustapha Kay ak sëñ Moustapha yaram bi daal jëfam ak kaw ak nuru sëñ Abdoulaha tuuti lool nuru sëñ Abdoulaha nuru sëñ Abdoulaye borom dëgg rafetal ni sëñ Bachir bàyyi baati ni sëñ Saliou borom doo ak ñàkk dara yéene ba nuru sëñ Ba naa la ko wax suba googu la fas bi yóbbu tëdd maam Thierno dikk di ko nekkali mu dara ma du maa wax yëf yi toog na foo xam ne maa war a dundali islam la ñëpp toog ba dem te ñëw fas bi rëpptal xaadim rasul mu ngi dajeeg tubaab bi koy jël si fi ñuy wax tund jeewal foofee la tawaxale saytaane ayasa minillah inda jeewal iblisa isnaadi tuku bi awali foofee la fanaan loo bi ñu ne ko da dem léegi mu ni du ma dem léegi ñu ne ko lëkkale ak ñarlaye kële moo jiite ndax kële moo jiite Louga ñoo ni jox aar ordre dama ni il faut nga dem suñ tubaab fanaan ndax ki may jox ndigal boobu tëg yéen mooy yàlla te jox loo yarante suma borom roof leen nelaw fa la ñu nelawee ba sëñ Tuubaa fa la def journée fa la jóge fa jàll kook jóge kook yi dem Louga lundi 12 août 1895 la jóge Louga ginnaaw bu julee tàkkusaan dugg ci saxaar bi mooy train dem Ndar suba gi muy xëy Ceerno la woon njaboot gi ko mu wàcc fas wi di awlu ndaar jël loxo bi teg ci bopp sëñ Moodu Moustapha teg loxo ci bopp sëñ Fall dénk naa leen yàlla ak rasulaay seen bàyyi ci am ci am njaboot dàlloo wikk nanu yaw nanu jàng bu daxa ngeen manqué na nekk jàng waaye yaw mu manqué na ma dem dimbali islam tey sax fa 38 jours yàlla gi sëñ Tuubaa mu def ndax mooy 38 jours un mois 8 jours 19 septembre la jógee ndax bisu alxamis la tolloo ñu indi ko Dakar fa mu war a embarqué si le 5 septembre lañ ko boole lañ ko dugal foofu ci bureau gouverneur ci la woon procès naa ko conférence rek jëndal julli yàlla procès 5 septembre bisu alxamis 1895 fa la jullee ñaari rakka 45 minutes la biir Faatiha Baqara Faatiha bii 285 aaya bii kenn su ko def ci biir gouverneur dafay dañ koy fàttali ko mooy lañ ko boolee gaynde ci jardin d'essai ngeen déggee essai mooy lu ñuy càmbar bi ko benn jardin boo xam ni lañ koy càmbare bi lañu xool dañu rek léegi léegi ñu tàggat benn koy wax toolu buur ci Ndar

daa adalaay min qabli shakki wal fadal wala yëkkatee lislaam 38 jours yi mag mu jëm si Dakar bi muy ñëw Dakar daa yor koor daa wooral yàlla borom bisu alxamis la tolloo 19 septembre 1881 mu dugg ci saxaar bi jëm si Dakar joxuñu ko siège mu toog sëñ Touba toogul dafa taxawee ndax ba Dakar bokk kaamil alxuraan timis la fi agsi tàngal jóob lañ ko yóbbu ci néeg bu lëndëm lañ ko mu yoraale koor ma ngi dàqanteeg waxtu yu bëgg a dund bi mu dikkee ñu ne ko duggal ci néeg bu xat la néeg bu lënd bi mu roosee tànkam dafa daje ak doxal daje ak raab moo gën a tànku na mënut a dellu ginnaaw mënut a gañ lépp ci contrat bi la bokk ñaara ko fa fekk yarante bi alayhi salaatu wasalaam ak maam jaara bi sama jox waxaat moo tax naan fa làmbal mu làmb daj ay ak ay làmb ñu tëj ko foofa kenn mu des fa dara mu daal di jublu xibla daal di kàppal ñu keroog mën nga su jóg ngeen kàppal mu jàng fa Baqara ak Aali Imraan Jibril tijji ne fële Quraan am na fa lu dul ca leer na keroog gis na rasulullah mu di ko ñaax di ko dolli daal nee keroog gis na sunu maam Jaara mu di ko ñaax di ko dolli daal nee keroog gis na rasulullah mu dee ko loolu dee su ko xam di daal ku weddi lii laajal Sëriñ Mor Penda moo fekke woon waxtaan la keroog moom Bamba njool màkka nan ko xalamal saxaaba bu tudd xamsatu li lay kitaaba nee na keroog jibrilu mikaa'ilu kazaaka asraafilu azraa'ilu ñëw nañ fa ngir bëgg alak nasaraan ci xeeti alkaani ma aniraan loolu taxoon Seex Bamba naan ca way wa afawtu amrum loolu dana al mabiid wa zaalika al amni wa taar al jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba an maay loolu Dakar la xëy waaye yàlla fay na ko rek ndax néeg bu leen ne am na jumaa ju mag am tey yoo xam ne cent vingt quatre ans mooy différence bi wax naa ko ci benn conférence luy logique logique xam nga luy logique bi sëñ Tuubaay song mille huit cent quatre vingt quinze sëñ Basiru képp ci doom yëpp sëñ Basiru képp 2019 lañ ubbi Masaalikul Jinaan muy 124 ans derek sëñ Basiru di xalifaam sëñ Muntaxaa mu ñëw ubbil ko sëñ Tuubaa ci Dakar mu sonnew mu ne lil Muntaxaa wajjahtu fii Dakar dikran bii xàpp ci ban Dakar màggal nan ko waajal waajal gi nag mooy fas yéenee dernde ma ni am na kook mu ngi waajal màggal bu 18 safar te buy dem day yóbbu valise lu yére lépp cas nawet lay ba ci gëne jëndal sëñ Tuubaa ci bisam bi yóbbu valise boo xam dina am 30 jas na yu bokk te lépp yaa koy ñaw la kon yow déggagoo sëñ Tuubaa am na koo xam ni li mu jaay ci trois cent soixante cinq jours yi romb na gàtt gàtt presque benn cinquante millions war a demee te mën na joxe benn gàtt ci màggalu Sëñ yi benn am na koo xam ne rendez-vous la ko def pour taxawaan bi wala caaxaan kooku déggagul Sëñ Tuubaa bis ba bisu sant yàlla borom kon waajal ko ci bernde te waajal ko ci worma te waajal ko ci ibaadaat waajal ko ci topp lu neex sëriñ ndax moom kat gis la boo xam yàlla ko gërëm ci lim ko def maa ngi sant bu baax sëñ seexu naa danaa sonn sama baax dafa sonn dafa paan fi mu ndax dama dul noppal bis bi kat ci lii laa ñëw gi mooy léeg-léeg nga ñëw ci bërëb pour rek def acte de présence xam ne la ngay wax ñor na la loolu mooy kon lii tax ñu kon wan leen ni daal kóllëre gi ñu façon man ak yow ak sëñ Badara bu baax nee ko lépp di sëriñ Tuubaa bu ngeen defee bis bii muy safar bu ngeen di gàttandu fukki fan yi juróom-ñett yàlla na yàlla sàmm la bàyyi ko ci yéen yu jëf ci yoon bi ñu ko bëggee waaw te nag nañ ci affaire jot ndax sëñ Tuubaa la yàlla jox lépp te barke gi nag fépp mu wuy gi sëñ Tuubaa sëñ buubu Ndakaaru rek moom sëñ buubu Ndakaaru Njaasaan nee na barke dina doxoo fépp wuy gi njabootu sëñ Tuubaa ndax sëñ bee ko fàgg ci génn gi mu génn kon képp ku ciy feeñ rek barke mën naa ñëw ci yow ngi lay sant bu baax sa yaw ak sa teggin moo maye lii lépp man yëkkati ma yombul nag ma wax la lool waaw programme bari dama leen di ay télé mag ci réew mais woo sama léegi am na loo xam nit tam attanu ko waaye man fi ne yàlla bindee na ma su ma amantee yow kóllëre dootul nekk dërëm man jikko laay jàpp nit ak mbaax ak taali bi su ma xasee ba jàpp la ci loolu milliardaire man na maa soxla te soxla moo war ko demee noonu laa damaa yëg ci yéen ak bëgg sëñ Tuuba loolu mooy sama tànk yi ndax mënoon naa rottu rek moo jugee Thiès jaar moom autotapé ak mu nga jigee ci Almadies laa def sama mën naa wàcc ma ko def mukk ak kàpp yi ma waxante yéen ak kóolal ak jëm a jàpp feeg ngi nekk ko dévier moom bu yeboo na damaa yëg ci kon sëñ Touba ak jàpp gi ngeen ko jàpp ak nangoo liggéey di ay ndaw te jubal te bëgg sëñ te am yéene liggéeyal te kóolal ak la jàpp ci yéen yàlla yàlla sàmm leen te sàmm képp ku fi deew faj aajo yi bu baax ku guddal fan lu gën lu baax ak toogaay bi yàgg na léegi-léegi sax ngay wax ba mujj gi dañ leen nit ki doo ko xëyal waa kii nag ñaan na dama bëgg a reeroo ñu def maa ngi jégul ñëpp daal leen baax baal na ñëpp dal leen مجلد الغيب أنساك الكلمة والخفض يا متي يا من في جميل سلسان